mbokki jullit yi ñu leen di nuyu di leen di ndokkeel ci weeru màgg wi di leen di ndokkeel ci fan yu màgg yi mu nekk fan yi nga xam ne ci la ñuy teeru ki nga xam ne nii lépp lu am ci barkeem la amee mu nekk sang bi euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne nii bu yàlla amal ba bëccëg moom la ki nga xam ne bu yàlla amal jant ak weer moom la ki nga xam ne bu yàlla di amal bés ak lépp semaine ak weer moom la kon buñ ñëwee fii nii ci barab yi soppeem bi nga xam ne nii dundam yëpp moom la ko liggéeyal ndax heure bu nekk rek fu yëkkatee kàddoom rek ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wax ñun xéewal gi moom moo ñu ko may tey nit ñi di jógee fu nekk ci àdduna bi di ñëw fii di gàmmu si mënoon nañoo bokk ci ña nga xam ne dañuy buubu di dem ci yeneen réew yi di gàmmu kon nag bu ñuy yàlla mayee xéewal gi jaarale ko ci loxo Maulana Cheikh Ibrahim Niass danañ sant yàlla ci xéewal gim ñu boole ci njabooti Cheikh Ibrahim ndax njaboot la joo xamante ni ite yi mooy bëgg lislaam iteem yëpp moom mooy bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te képp koo xam ne yaa ngi koy roy rek ci loolu nga koy royee képp koo xam ne yaa ngi koy topp ci lu mel noonu nga koy toppee ndax moom yitteem yëpp mooy mooy loolu ndax yitteem moom mooy jël doomu aadama bi def ko ba nga xamante ni dafay nekk insaniyatu dafay nite ndax nit ñu la koy wax moom mooy nga nite ñun ñëpp ay doomu aadama lañ mais ki xalam wàcc kooku des naa nite kon bu ñu bàyyi jëlee tànn ñi pour bugg ñooy def ay nit lañ waaw kon bu ñu yàlla mayee loolu ñu bokk ci mbooloo boobu war nañoo sant yàlla sang bi nag muy Maulana Cheikh Ibrahim Niass moom ku ko xam xam digganteem ak yonent digganteem ak yonent bi moom mooy diggante ñaar ñu bëggante digganteem ak yonent bi mooy diggante ñaar ñoo xamante ni kenn ki wan ne ko ne ko lépp lu ma am ci sa barke laa ko amee mu wan ko ne ko lépp lu may am tamit ci bëgg la laa koy amee ñun Baay def ñoo jàngal loo xam ne dañ ko war ji gis di ko dégg mooy lan mooy bëgg yonent bi ki nga bëgg boo ko toppee mën na laa may lu nekk xidmaal ko liggéeyal ko ba nga xam ne nii lépp li nga bëgg yàlla dana la ko may te ñun Mawlana Cheikh Ibrahim Niass loolu la ñuy jàngal loolu la ñuy yaree moo ñu may tey jataay bii ñu ñëw toog fi ndax bëgg yonentam moo indi fu nekk dëgg-dëgg boo duggee ci dëkk bi da nga xam ne ku kum neex kum neex nga wax ci sa sëriñ lu la neex waaye sëriñ bii lim def amul benn sëriñ bu ko def amul benn sëriñ bu ko def kum neex nag nga ne sama sëriñ def na na waaye nga toog ci benn jataay nga tudd baati seede yi nga am ay junney junney nit ci benn jataay nga dugal leen ci diine lislaam loolu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko man loolu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko man te lépp luñ lay wax dañuy am firnde yu leer yoo xam ne lu ci ëpp sax soo xoolee noonu lislaam yi ñoo koy wax boo duggee ci dëkk bi tey néew na nga gis ci oto boo xamante ni nekkul immatriculation beneen réew waaw kon loolu bu amee rek da nga xam ne dëgg-dëgg gàmmu international Medina Baye la Baye Niass cofeelam ci yonantu bi moo tax yonantu bi jagleel ko loolu kon ñun suñuy wax ci loolu loolu lañ ci mën a wax yi ndoki baax tey jii le huit mu war a tëj mawlid bi fii ci jumaa ji suba ak jàmm incha allah le neuf novembre muy gàmmu magal bi yéen tamit salaam ñaari mbir date yi fi ñu xaw a méngoo yooyu lan moo ci waaw loolu yëpp ci ajaayibu cheikh la ajaayibu cheikh bokk na ci lim doon wax ne wa maratan uxra taraw na ajaban taraw na ajaban boobu mooy lii tey moom bëgg na yonent bi ba nga xam ne 8 novembre ñëpp xam nañ ne ci la Maulana Cheikh Ibrahima Niass moom moo ko waxal boppam mu ne ba muy bind leetar boobu Serigne Aliou sax daf ne ko mu ërixu na ñooñ histoire yàgg nañoo uutee ci histoire waaye nañ dëggal lii man maa ngi judd le 15 rajab 1318 mu ngi tolloog 8 novembre te man wax jooju noonu ba ma toogee benn waaye ñi ci ñi ciy waxtaan ma ne ko nañ dugg ci internet bi kon bu fekkee mille trois cent vingt bi ñuy wax ne moom la bàyyi juddu boobu boo fa demee xam xam sacha rajab dafay nekk mardi te ma ne ko ñëpp nañ ne alxames la bàyyi juddu ma ne ko léegi nañ jël 8 novembre 1900 biñ ko calculé dafa nekk jeudi ma ne ko kon lii bàyyi wax nii moom te ñëpp d'accord nañ ne xam sacha rajab yi te kum neex nga dugg ci internet bi nga recherche da ngay gis ne quinze quinze rajab 1320 mardi lay tolloo mardi la woon te ñëpp nangu nañ ne alxames la judd woon te boo tàppee 8 novembre 1900 alxames la lay jox kon loolu tey bu ñu yàlla mayee 8 novembre ñëw ñi ñëwaat fii di màggal yonent bi ñun tey dañoo am leer ci kaw leer Baay Ñas dañuy màggal ga gane àddunaam yonent bi la ñuy màggal gane àddunaam waaye daf di ne bu yonent bi xew xewlee Baay amatut Baay bu yonent bi xewlee amatut bàyyi bëggul kenn du ko tëkkale di ko tudd di tudd yonent bi lu dul ci mbëggeelam ci yonent bi waaye lépp lu ñu wax ne yonent bi la rek daf naan groupe ci suuf ne moom yonent bi fu ñu ko tuddee rek mu ne sallallahu alayhi wa sallam kon ku mel noonu bu ko yàlla mayee lii danga xam ne démb mooy tey te wa maratan uxra yooyu mu doon wax moo indi lii nii tey kon ñun amuñ lu dul sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla sant yàlla tamit bi ñu yàlla boolee ñi bokk ci am toppam ndax mbooloo mii du ci a bokk bokk ci waaye ku yàlla namu ci ak yiw yaa ciy bokk kon képp ku ci bokk rek man nga wax ne yàlla dafa namu ci man ak yiw yal nañu yàlla dimbaleel boppam ñi ngi ndokkeel nag umma islamique bi yëpp ak ñu dul jullit sax ñu ngi leen di ndokkeel ndax même bu fekkee ne noonu Seydina Mohamed lañ xam ne ñoom ci jëmmu Seydina Mohamed leen yàlla bindee kon Seydina Mohamed moom bu bésam jotee xéewal yi yëpp dafay saawaan baawaan fu nekk waaye nag barab bii daf cee ëppale barab bii barabu nangu ñaan la barab bii la daan suñu sëriñ di toog di gàmmu fi la daan toog di firi alquran fi lay daan Cheikh e, Mawlana Cheikh Alhaji Abdoulaye di toog di firi alquran fi lay Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi di toog di firi alquran kon nag bes bi su jotee dañuy ndokkeel umma bi yëpp waaye nag suñ ndokkeel ñun nañ koy jël teg ko ci Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass al Khalifa ñaan ko yàlla yàlla guddal fanam may ko wér moom ak mboolem mi magam ak i rakkam yëpp ñun moom la ñuy jox suñ ndokkeel mu jàllaleen ñu ko ci mboolem umma islamique bi yëpp ñu ngi sant bu baax di gërëm di ndokkee tamit Sall Baye eh, ci seen liggéey yu rafet yi nga xam ne yéen a koy def yal na yàlla barkeel leen ba bu déwénee bu ñuy ñëw ñu gis télévision incha allah boo xam ne Sall Baye moo koy moom te wax bu amee rek ne nekk télévision boo xam ne lépp pour paix bi la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh